Khadim Khadim. mais nag xam ne maanaam dina yëg ci la dina ñëwoon a dem ba yëg si contrat. mais nag sa contrat nga nekk te yaa ngi waaj. non boo ma gisee xam ne maa ngi waaj bu baax. te xam naa ne allez boo gisee am na retour. wax ji bëri na. mais yàgg yàgg fii la ñu mujjee. waaw wax ji bëri na mais léegi-léegi ñu ne arbitre léegi mu sifflé. bu boobaa ñu xam këla kii kii këla mer kii kii. mais boo ma ne li nga def nii lamb dafa namoon lii. ambiance bi nga andi tey foofu woon suuf si si néew lan moo la poussé à ce que nga def loolu tey. su ma rek Cheikh Super Diamono su ma rakk la kenn xam ne nu mu mel ci man man ma yoru pousse bi kon du ma nangu mu réer mu gestu gis ma rek loolu am na lu mu yokk ci moom waaw moo tax ma ñëw tey ak dooleel ko bu baax a baax te incha allah yàlla ko may ndam. moo jëloon sama drapeau bi passé. non lu lu mu rek am na lu des. yaram dafa yaru Cheikh dafa yaru xam naa dara am na ay rek yu bari ci école bi mais tey moo xewle ñëpp ñam combat ci école yàlla yàlla may ndam mais moom da cee ci man moo tax. mais entraîné ko gu ma malal mii moo ma yor. te billaahi moom dama bay entraîné gu ma. des na lu bari parce que combat bi ma jël moo tax ku ma ko yombal nag may nax. loolu ju moo ngi pour def la gën a entraîné loo. baax nag muy def loolu. di ko ñaanal yàlla li muy def lépp yàlla may ko mu ñëw fii ma daan ay minutes incha allah. loolu képp kum dajeel ci MMA yàlla na ko yàlla may ndam mais bu ñëwee fii incha allah ma daan ko loolu la international la kenn wérante ko ñoom xam nañ maa ko mayoon chance mais fi na may chance gi sax feeñul lu waxtu ñu ma ko may chance li xaar abdou wàcce loxo bi xaar mu xaar ma man naa ñëw lan lañ mën a laaj bi yenu mu daanu wala lan en tout cas fu ma ko jàpp mu daanu xam loolu neexul de bi ma wax du ma wax moom muy weddi sëñ Mourou mi tëgg combat bi sama set combat benn année moo ko tëgg te yëpp ci loxoy kii lay jaar te man bu mu ñëwee dama la yenu dama la yenoo man bu mu ñëwee bu ma la nee bu ñu mu jeex bu ñu jàppantee mu jeex te bu bëggee ma jox ko tànk mu jàpp ba mu dëgër ma ne ko bëreel barke Seex Tijaan billaay nee daa mën a daa mën a bëre baar bi sifflé Sénégal yëpp nangul nañ ko loolu daa mën a bëre man nangul naa ko est nangul na moom sama nangu bëri a nangul ma bëri nangu naa ne mun naa na maa daal est-ce que nangul na mun na maa daal nangu ko de baar bi sifflé parabéns daal parabéns nañoo parabéns guy gi bu bees. baar bi sifle. ah baar bi sifle. baax na kontaan nañ ci yow ñoo kan mooy doon maire Guédiawaye man maa wax loolu. waaw. man parce que man aw lu dul Guédiawaye man abu man dama bëgg waa Guédiawaye. Cheikh Super Diamono. waa ndeysaan mbokk internet international di ndana ci lamb ndana ci actualité mbokk internet TV nuyu bu rafet sama jigéen ña Matar maa ngi lay nuyu Matar maa ngi lay nuyu yaag bël bu rafet ab bi sifflé na grand combat bi ñu xar Rouba dem na Vai tendo pelo processo. lancer daa bëgg a diriger wala capitaine dina Cheikh Super Diamono Cheikh Super Diamono pakate na suuf daan na ko daan na ko lamb ji jeex na ko waaw waaw lamb ji jeex na daan na ko daan na Serigne Soumbé jamono lamb ji jeex na waaw daan ko kay jël bu ji jeex tey daan nañ ko ndeysaan xamul lu xew de am ko jaaxal de eh waay eh waay xoolal ma ñëwal ñëwal ñëwal Lamine ñëwal. Lamine ñëwal. Lamine ñëwal. 여러분에게 그래서 우리들이 이번 디스니 브레이크라고 봤어요. 너네는 좋아해요. 안녕하세요.